mbokk internet yi dalee nag jàmm train express régional euh, tey la ñu koy inauguré maanaam mise en circulation bi tey lay daal di nag door euh, ci ndakaaru jëm ca jam ñaaño gi nga xamante ni nag foofee mooy trajet bi euh, moom train express régional bile nekk nag daanaka réalisation président de la république Macky Sall moom nag mu nekk ab réalisation boo xamante ni nag coow moo ko daal di nag lal ci commencement bi ba ci fay bi moom train express régional bi lee di TER bi euh, tey nag daanaka mu nar a daal di door li nga xam ne mooy circulation am waaye nag démb ki nga xamante ni moom mooy Mansour fay nekk ministre gi nga xamante ni euh, moom la ñu daal di nag dénk lépp li nga xamante ni nag euh, moom mooy wàllum transport ci nag réew mi moo daal di nag xam leen ni nag TER bi daanaka dina daw te nag ci quinze jours yi di ñëw daanaka nag ku dugg doo fay maanaam le TER sera gratuit durant une quinzaine de moom Mansour Faye nekk goro ci président de la République Macky Sall Macky Marième ñu dénk ko nag ministère du transport moo xam ne lu ñu mel ni train express régional bi dina gratuit durant une quinzaine de jours ginnaaw inauguration lundi jàpp nag 27 décembre annonce bi nag ko xamle le 27 décembre prochain sénégalais yi daanaka dinañ mën a emprunter le train euh, pendant nag une période d'essai en gratuité euh, sur une quinzaine de jours sénégalais yi dinañ am opportunité euh, daal di nag xool réellement ce que représente le train express régional Euh, moom ministre bi di rappelé que ne TER bi daanaka benn transport de masse boo xam ne euh, dañ ko daal di destiné a transporter plus de cent quinze mille voyageurs par jour et plus de cent quatre vingt seize euh, trajets entre Dakar et Diamniadio bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy nag Mansour Faye waaye nag ci boobu la mise en circulation bu TER bi am na ci nag polémique bu ci juddu muy nag ñu bëri nee ñu quinze jours yi bu rombee TER bi dafay daal nag euh, taxawaat ndax nag parewuñu waaye nag sous la pression des populations ñi doon laajte teer bi kañ lay daw kañ lay daw euh, moo tax ñu daal di précipité li nga xamante ni mooy date de mise en circulation bi euh, comme nañu daal di nag précipité woon nañu daal di nag précipité woon li nga xamante ni nag moom mooy euh, date inauguration bu TER euh, ba ñu doon dalloo li nga xamante ni moom mooy TER bi euh, président de la république Macky Sall daal defoon lu ñu mel mu nekkoon en janvier 2019 ñëpp xamoon ni nag ne wàllum politique la ndax nag ñu ngi doon waaj élection présidentielle yu nag euh, mars deux mille dix neuf euh, mu profité nag booba daanaka am na ci ay raay yoo xam ne sax defaraata guñ ko am na fu tojo tojowul woon euh, ci chantier ya dara buusul woon paasutu woon mu daal di inauguré terre bi deux mille dix neuf deux mille vingt daanaka deux ans ci ren ji terre bi daal di war mën a daw ci xaar bu yàgg boo xam ne ñu ngi koy daal di nag xaar te ba tey ji nag ab dawam continuer sax